première fois nga koy doog a la ñu ngi ci suñu quatrième édition. di ko rendre hommage à Sele Bobo sama benn membre fan club boo xam ne dafa wàññeeku. donc euh, voilà ñu ngi fii tey ci Padois ah quatrième édition Abiba Musique Abiba Fondation Kaay Ndogu yi macha allah Abiba ñu bëgg a xamoon rek idée bi fan la jógee. idée bi euh, ci man la jógee ak rek waa team bi. donc ñu ñu ne faaw ñuy def ay euh, ay euh, œuvre durant ci weeru koor bi ay action sociale donc ñu commencé ko ci kaay ndogu yi di ñaan yàlla mu gën a law incha allah. d' accord Abiba quatrième édition kaay ndogu bi lan moo waral soir bi tey doon Padoa. Euh, Padois euh, parce que à chaque année rek dañuy xool à chaque édition ñu tànn yenn gox yi donc ren nag Padois nañu ñëw parce que années yi passé ñëwuñ fi woon donc di ñaan yàlla ñu dem ba mun fee ñëwaat incha allah def tour bi yëpp ba ñëwaat Padois. d'accord ba tey ñu nekk li nga xamante ni moo de euh, kaay ndogu ñu gis ne bi mooy quatrième édition bi ndax Abiba ba léegi dafa am ñoo xamante ne ñu ngi nekk si ginnaawam di ko jàppale wala Abiba ba tey moom moo kese moo nekk si liggéey ak euh, team Abiba Musique samay am di jàmm samay nit samay papa ak samay yaay ak samay xarit yoo xam ne tey jii bëgguñ sax ñu lim seen tour ñoom ñëpp jàpp nañ ci vraiment donc may remercier de passage ñëpp ah euh, ñëpp ñu ci jàpp rek damay bañ a lim rek juum donc euh, voilà gars yi ku nekk day indi dara après buñ ko boolee rek mu daal di bëri ñu ñëw jàppale ko doomu aadama yi. naka dundee liggéey bi ak weeru koor gi. bah c'est pas facile mais tàmm nañ ko parce que chaque année dañ koy def avec l'ambiance ak euh, groupe bi ni ñu mel bu ñuy euh, préparé donc euh, du ñu sentir trop xiif bi donc voilà on gère. moo tax nga choisir Padois nga nga déparé Padois. déparé Padois que nekk ma fi woon les années précédentes comme ni ma ko waxee léegi. Mhm. donc cette année ma ne damay ñëw Padois. et le 23 incha allah le 23 avril maa ngi dem Gédo le 29 avril dañuy dem ci daara distribuer ay ravitaillement incha allah. Habiba lan ngay wax ah, sa fans yi lay préparé après ah, koor gi ndax gars yi namu nañ la da nga xaw a raar tuuti. <laughs> dëgg la man moom su ma fee raar fan yi mais ah, voilà on a les soirées qui vont venir en live bégal leen jox leen seen déwénal ak single yi clip yi incha allah bu ñu waree. <laughs> merci beaucoup merci beaucoup merci à vous.